diwuma la di jël mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum. Euh, na def. ñoo ngi fi ñoo ngi sant yàlla bu baax. pardon de Europe laa lay woowee moo xawul neex Soyibu Amar laa tudd. d'accord na ngeen def Soyibu. nekk Italie. naka waa Italie man ma nëbb sama tur parce que dama li ma nekk dama dama dama ko bëgg tey liggéeyuma. Mhm. ndax xol bu jeex. ayca bismillah ci waxtaan damaa bokk ci benn mouvement mouvement bu de peine comitato ventinovesluglio mhm. kon affaire yi bu suba cee dellu ginnaaw mhm. daa bëgg nga déglu bu baax a baax mhm. ndax li ma daf maa ñor xaj na nag sama xel rafetul yaa ngi may dégg waaw sëñ bi ñoo ngi lay déglu bu baax a baax Macky Sall maa ngi jaale nag ngi ci faatu ñëpp sama xol bi li ko waddal mooy xale boobu ñu téye woon police yi téye ko naqari na ma lool lool lool alal ji yàqu nooy sa ñeent amul problème. Mhm. dañ koy liggéeyaat. Mhm. dafa dem wala fajri nekk li histoire Moussa yàlla jox ko fan gudd ak wér jox ko réew mi tey mu taxaw taxawaayu Firaaw na. Mhm. dégg nga baax li ma la wax. ñaari kilifa diina taxaw ci pale bi. bërki demoo njaay mhm. ñu ay boroomi xam-xam yu rafet lu seen xam-xam ñu raw ci senegal kenn ki ne man damaa tëdd ci daay daaj ci kàmb maa ngi ci jaww ji waaye ba mu demee ci jaww ji subhanahu wa taala fekk mu song benn aaya alquran ngir di ci defar dara jaam yàlla weddi ñu jàng alquran nañ dem vérifier vidéo bu dégg li mu wax Macky Sall dégg loolu kilifa kawatoo dégg loolu loolu day taalum réew. gis mhm. nga sëñ bi réew mi. ba mhm. yàlla baal te baal dama ñu dañ ko baal ne moom waaye dañ koo bëgg. ndax li fi xew dañoo néexul. Mhm. man Cheikh Bara Ndiaye day sama waay torop. ñëw ma nag bu ko jàpp ndax amul problème. waa am na jàpp yoo xam ne ruux siiru la. mais moytu riix suuru ba noppi matt batta ñaareel ba. Mhm. dafa am gone ndaw ñu naan sëñ ne mun Muntaxa wax man sëñ Muntaxa dama koo bëgg di ko sakkanal ba gënuwuma ko sëñ Muntaxa nee na li ma am lépp ci maslaa laa ko amee. Mhm. kon mun Muntaxa du dem ba tollu fii naan samay wax su ma sañoon bu waxee mu am njariñ kon mhm. mag ay gone dañ ko war a dégg foofu. Mhm. man damaa bëgg Touba ba Touba bi xam ko ñëpp xam ko. Mhm. alors képp fu ñu toll ba lii war ñoo dal. Mhm. lu ñu def yàlla ba lii war ñoo dal. dañu am ay kilifa am ay jànkatu alxuraan am lépp. mais suñ Mountakha bu mu wax Macky Sall lan moo tax mënut a jàkkaarloog askan wi wax mooy kan. ñun sëñ bi ay doomu aadama di ay kilifa yor ay responsable di liggéey di dugal xaalis bu du jeex Sénégal mais te quatre terme par là mais bi ñun du ñu ay jàpp mhm. ñun ay góor yu seet jàng alxuraan ba mokkal ko jànguñu français mais ab français duutuñu jiite man ma wax loolu la man man ci sax français du ma jiite man sax tubaab sax du jiite def naa ko vingt trois ans man tubaab du ma jiite bala maa dee ñuy wax seen français naan man ku ciy wax baatu France man dugg ci suuf si lay bëgg ma kee kat su seete booy waaye si bu la ñu rey waaye. liggéey liggéey sax nit ñi muutu. merci xanaa merci beaucoup. waaw par une couleur di yokku. Oh, merci. xol xol baa xol baa jeex nañu comprendre ni mu waxee vraiment xol baa xol baa jeex ñu ngi ñuy wax sax ne moom Italie mu nekk nag daanaka am na ay sénégalais vraiment ya fa mer ba jotoon nañ sax am amal foofu noonu ay yëngu-yëngal euh, bañ ne consule ba fa vraiment amoon nañu ay jafe-jafe ba sax nee nañ am na ñaña jot a àgg ci kawam euh, donc li lay xibaar la bi nga xamante ne sunu ay mbokki taskatu xibaar ñoo ñu ko daal di yónnee Italie ginnaaw France nag Italie ni ki démb ñoom itam euh, ni ki sànq jot nañ yëngu-yëngal ba consul ba fa am na ay jafe-jafe yi nga xamante ne jot na ka jot na ko daal di subir salaamaaleykum waaw sëñ bi la nga lay siyaar waay delloo ziar wér foo ñuy woowee Abdou Diallo Italie Italie nga nekk waaw yow de mën nañ li ñuy wax tombel waral tombé waral ay gaaf daa am laaj bu buñ la bëgg a laaj su fekkee yëg nga ko maanaam ca Milan nee nañ foofu noonu mhm. ay euh, yëngu-yëngul dafa am sénégalais ya fa ñoo doon yëngu-yëngal ba consul ba jot nañ ko dak daal di moom ndax xibaar boobu yéen jot ngeen ko non yëgu moom Milan laa jóge ni mhm. mhm. damaa bëgg nu am lu ma leeral tuuti rek aja bismillah gis nga Sénégal nañ delloo seen xel. Mhm. te nangu ko yàlla teg yàlla Macky Sall la fi teg. Mhm. yuuxu yeeg yii yëpp yàlla néewul Macky Sall feeg fi jeexal nga. Mhm. amul benn doomu aadama mën a jeexal Macky Sall nguuram gi. nan di nangul gis nga Sénégalais moo nangul ko jiitu sëñ bi. lu leer laa lay wax. d'accord ay fan ay jamono ku ne wax la fi jóge na Macky Sall ñëw na Macky Sall ñëw tey Macky Sall ñëw na. Mhm. ñëpp a koy xeex ne na fi jugee na fi jugee rek keneen ñëw ñu ñu ne Ousmane Sonko ñëw te Ousmane Sonko mi ni yaakaar. Mhm. yàlla xam na ne àttanul Sénégal. Mhm. te mën naa la war ay firnde yu bëree bëri ndax ndax nit da ngaa war a xam état. nekk homme d'état di téye sa gémmiñ di noppi mais Ousmane Sonko melul noonu. mais Sénégal yu bëri. soxor jàpp na leen. Mhm. ñaan jàpp leen. nañ xam ne li yàlla dogal kenn mën si dara. man su ma doon président Macky Sall du ma wax ak kenn. képp xam ne bàyyi nga sa doom. mu génn ban rey ko. Mhm. man nañ ma jël nu koy ñaanal man nañ koo jàppee ku ku dem sawara. Mhm. nañ ko wax te dee dëgg nañ koo wax te dee. ñii di wax ñëpp ñii di wax ñëpp te dugg. amul kenn ku si doom génn di dox ñax. lu dul affaire naa fekk rek la ñuy ndax boo nekkee Europe amoo daa xam naan ne du xale yi génn na xale yi génn. Mhm. lan moo leen tee ràgg bee ñoom dem Europe war ñu ñu xam noonu Europe ñu daje fenn ñu ñëpp du xeex nu songoo nu nu nu fi nu filmé ko nu xam li ñuy wax dëgg la ci ñoom. d'accord mais billaahi wallaahi taalaahi amul kenn ku si ñemee génn na naan naan nii nii nii xam nga tey toog sa lal te du fi nga tëdd naan président nangam président nangam. Mhm. mais billahi wallahi ba ñoo xam Sénégal një Macky Sall njëriñ Macky Sall dëgg dëgg dëgg. Mhm. na dem ba jeexal ba mu ñëwaat ba keneen toog. d'accord dina am ñu wootaat émission bi di wétu parce que nanguwul ñu dëgg. d'accord merci Sénégal mooy réew mu xam ni. maa mhm. ma tuutale seen bi ndax nga baal ma rek ay seconde rek. Ah, jàpp ci ndax ndax daanaka liñ coro ci waxtu léegi mu jeex rek nga tënk ko ci benn simili rek su fekkee mën na nekk. voilà voilà nga baal tuuti rek parce que il faut ma yi Sénégal yi xam amuñu mu ngi Sénégal ay nit di nekk bitim réew di leen naa leen dem leen dem leen te ñoom ñu ngi téye seen doomi fii téye seen doomi Sénégal naan seen doom bu kenn génn. Mhm. ay naan ne réew mi di yéen Sénégal ah, lu mel ni état kan moo ko mën a jëlee ci ay ay xeet dafa mën a jële mhm. te maa ngi remercier sëñ Mountakha di ko ñaanal yàlla na ko yàlla meew ak gudd fan. Mhm. matukaayam jox Baye Fall Mhm. loolu lañ doon xaar si moom. d'accord te def la ko kon Sénégal nga xam ne noo ko bokk kenn koo xar ñaar. Mhm. ñii di wax ñëpp xaaj yëpp ay naafeq lañ mooy ñi nga xamante si ni bu njëkk seen waajur yi ñoom ñoo doon tas àdduna di tas mis bu njëkk ñoo gën di wax wax ci bon ci tey mais teguñu ko si diine teguñu ko si lislaam teguñu ko si aar teguñu cosaan d'accord maanaam boo ji boo nampee leen soxla da ba aw keroog ngay faat. d'accord merci. ndax bëgguñu ko avancé te Macky Sall ku gis li mu liggéey Sénégal. Mhm. may ne ko ñëpp ñaanal te ma ko mu am mu gudd fan. merci merci beaucoup jërëjëf sëñ maa ngi lay siyaar baax. merci di la jaajëfal jërëjëf sa liggéey. merci merci. di la ñaanal jàmm yal na yàlla wér ak gudd fan. amiin merci beaucoup di ko ñaanal. jaajëf merci jaajëf jaajëf di ko jaajëfal di eh, jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy eh, bàyyi xel ci eh, bi ñuy dooree waxtaan ba léegi bari Thierno maa ngi lay jaajëfal patron provider Mat Aar maa ngi lay jaajëfal Babacar Cissé Lamine Gaye ah, Yaram ah, Yaram Cissé Cheikh Thiaw eh, El Hadji Mamadou Gassama maa ngi koy jaajëfal itam di ko nuyu baax a baax eh, Fana Mbaye Fatima la Binta Mbengue salaamaaleykum mbokk mi salaamaaleykum. allo mbokk mi na ngeen def. waaw ah, maa ngi di la jaajëfal foo ñuy woowee. Ah, maa ngi woowee ah, Amérique. naka waa Amérique. waaw waaw sant yàlla bu baax. ban jàngat ngay def ci. Euh, situation bi actuellement. waaw doon doon woote rek pour naxarlu tamit ah, di jaale tamit waa Sénégal yëpp. Mhm. parce que moom wax dëgg yàlla metti na torop di ko seetaan. Mhm. Eh, di wax tamit démb moom déglu naa waa police yi lu ñuy wax ci seeni discours mhm. pour affaire euh, force yooyu noonu yëpp mhm. parce que dañu war a xam ne instant bi ñoom Macky Sall dafa toll ci situation boo xam ne mhm. dafa bëgg a jaxase Sénégal parce que lii ñoom lu ñu préparé la boo xoolee lu ñu comme vidéo yi ñu wone yëpp yàlla yàlla nu mu leen di weeree mooy maanaam am na ñeneen ñu leen di filmer ñu gis ñoom ñu nekk ak policiers yi di tirer ci manifestants yi parce que boo xoolee même ay banques yi ñuy daaj yooyu noonu yëpp buñ ci xoolaatee bu baax seen nit yooyu ñoo koy def ñoom ñooy commencé après boo xale yi nag xale yi dugg mhm. ñu tiire fa parce que lii franchement franchement lu war a lu ñu war a kii la ah, ci nu mu tudd cour pénal international war nañ ci xool xam ne instant bi Macky bi dictateur bu yu gën a bon ci Afrique. <laughs> déedéet waaye sëñ bi. non wax dëgg yàlla bëgguma bëgguma wax wax ju bon waaye. lii moom metti na xol. waaw ñu ñu ñu xaw a rafetal kàddu yi rek. <laughs> waaw loolu moom waaw kon maa ngi jégalu ci kàddu yi dama dama leen di parce que lii moom metti na xam nga da nekk fii. effectivement en tant que dama mm-hmm. leen jàpp. Mm-hmm. léegi ñuy gis ci ci news yi gaa yi di wax yeneen gaa yi di wone leneen ci Sénégal mhm. te dara taxul lu dul Macky Sall rek mhm. ah ah ah ah ay nitam mhm. oui so léegi dama doon dama doon woote rek wax dëgg yàlla di naxarlu parce que instant bi ci metti na torop fan yi yëpp wax dëgg yàlla mënuñu liggéey ñu ngi fi waaye suñu xel bi yëpp mu ngi foofu merci merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal te di ko jooytu tamit merci merci am na solo merci beaucoup. merci oui di leen di leen jaajëfal yéen tamit yéen ñi nekk foofu di ñu won di ñu informer. merci beaucoup ah, te di ñuy wax dëgg bi tamit. Mhm. merci merci merci beaucoup. ok jaajëf. jaajëf ñu ngi lay remercier di la jaajëfal ah xam naa moom mooy nekk sunu dernier internaute du jour ndax euh, waxtu wi ñu cëraloon matal nañ ko di jaajafal ñëpp ñi nga xamante ne ils ont eu à participer euh, ci waxtaan wi euh, di jaajëfal itam sama réalisateur Mamadou Tall maa ngi lay jaajëfal bu baax baax a baax a baax baax moom mu woon ci chat en direct message yi bëri na du ñu mën a lire ñëpp mais dañuy essayer rek xam nga jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñooñu doon seetaan di doon participer à travers le chat en direct ngeen jéggal ma rek du ma mën a lire ñëpp ndax tur yi vraiment macha allah euh, Mamadou Diouf yow laa mujjee gis ci liste bi maa ngi lay jaajëfal El Hadji Thiam itam Babacar Mbaye Maguette Ndoye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Ndeye Rokhaya Diop itam Yaama Yaama Badji euh, Gang maa ngi lay nuyu Ami Sis fàttewuma la euh, El Ibrahim itam mag lay maa ngi lay jaajëfal Adama Jadana Ja Jadama maa ngi lay jaajëfal Abdou Abdou Thiané Elvis Ken Magay Ndoye Cheikh Thiaw Beya victoire Gilbert Cyprien Paya kooku euh, mention spéciale lay lay daal di jël Mariama Badji itam euh, euh, Cheikh caw maa ngi koy nuyuwaat bu baax a baax a baax patron.